nag tey ñu ñëwoon euh, seet si Abdou Aziz Aly Ndiaye euh, waxtaan ak moom ci wàllu gam mais Abdou dafa am phénomène bu xew ci la jeunesse sénégalaise. Mm-hmm. mooy daw songu mën mi. Uh-huh. ban conseil ngay jox la jeunesse sénégalaise ci gëm seen bopp ci wàllu toog ci réew mi wala nga xaar ba am ay papiers yu légal nga jaar ci avion dem Europe ban sensibilisation nga ci def. ñu tey waaw wax naa ko sànq. wax naa ko fan yii yëpp maa ngi ciy sensibiliser dama wax ni. pression bi parent yi di teg seen doom yi nañ ko wàññi. affaire immigration muy clandestine wala irrégulière bi jaar ci géej géej ak fu mën a doon li koy sabab dafa bari. Mm-hmm. bi ci jiitu mooy suñu yaay yi suñu tante yi suñu papa yi ak suñu ndijaay yi nga xam ni dañuy teg pression seeni doom di leen xas xasin woo xam ni des fois xale bi. day fipp da ngaa ñàkk jom. soo nekkee ci kër gi ñu naan la xoolal sa doomu ndijaay bi Cheikh sàmm tabax na kër ca Thiès. billaahi gisoo sa doomu ndijaay bi Talla Gajaga bi mu demee Chine wala Amérique am na kër yow nga ñàkk jom toog ci kër gi. pression boobu nga xam ni parent bi da koy teg doomam pour une réussite forcé yaakaar ni xale bi dafa war a am par force bu yeewoo gis yaayam di ko xas di ko teg pression gis yaayam amul dépense. moom day jaay bakkanam jaay laay fam billaahi xàmmewul géej ak jéeri ak joor dem wuti teraanga rek lay yaakaar ni mooy solution uh-huh. te bu demee wuti teraanga nag bëgg a jaar yoon yi mu mën a jaar te amu fa accès uh-huh. mënul am visa amul kayit yu ko permettre mu am ko faaw mu mbëkk ci géej gi ndax jomam xale yi jom moo leen yóbbu ak pression bu metti buñ leen di teg ci dañu war a réussir te yàlla àdduna yàlla yemalewul uh-huh. ñii dañu war a tukki ñii war a toog ñii war a am ñii war a ñàkk mais parent yi nañu teggi seen tànk tuuti <coughs> yërëm xale yi te bañ a def seen bopp ni coûte que coûte da nga war a réussir beneen point bi ma gis man moo di dama gëm ni tukki kumpa la la soo gisee tey Dubaï bokk na ci pays yi gën a riche ci monde bi uh-huh. Chine bokk na ci dëkk yi gën a riche ci monde bi mais seen poli politique migratoire dafa dañ koy yombal visa yi ba nga xam ni dem Dubaï wala dem Chine doo ñàkk sax cent mille francs pour am visa yi nekkatul kumpa ba xale yi dañuy dem Dubaï def fa une semaine ñibbisi oh. dem Chine def fa dix jours ñibbisi mais ambassade yi nekk Sénégal muy ambassade européenne et américaine oh. état bi dafa war a wax ak ñoom ñu alléger visa yi ba nga xam ni dem France wala dem Amérique wala dem Europe wala Amérique wala asi dootul nekk lu jafe dootul nekk kumpa. xale yi bu leen leeroon ni dem Amérique ak dem Dubaï ñoo yem. wala dem Amérique ak dem France wala dem ñoo yem. wala dem France ak dem Dubaï ñoo yem ku fa dem Paris soo defee une semaine dix jours boo gisul loo xam da ngay ñibbisiwaat. ñibbisi maa la ko mais ni ñu jafee les yi ba nga xam ni da ngay mel ni ku jëm guerre pour am ko ay millions ngay ñàkk. jafe googu mu jafe moo dem ba visa yi dañ koy maye mais ay nit dañuy teg seen ay politique di ko jaay ndax jafe bi ñu ko jafeel. loo xam ni quatre vingt mille francs cent mille francs ngay fay timbre pour am ko nit léeg-léeg di la ko jaay cinq millions six millions. billah loolu état bi moo war a wax ambassade yi yombalal leen visa yi xale yi ñu dem. <laughs> ba xam la fa xew suñ xamee la fa xew dootuñu fa toog. <laughs> su la leen boo demee Paris amoo foofu fanaan amoo liggéey. amoo loo lekk doo fa toog. déedéet. waaye bu ñu la ko jafelee ba mu jaral la nga def ci juróom benn million wala juróomi million soo amul juróomi million da ngay xataraayu jël géej. barke alxuraan. mais bu doon dañ ko def comme Dubaay da nga mës a gis kenn ko jël gaal jëm Dubaay. déedéet. parce que amul visa gisoo kenn ku xataraayu jël gaal jëm Chine il faut ñu wax ak tubaab yi ñu yombal visa yi xale yi bu ñu demee ba xam la fa xew dañuy ñibbisiwaat. Hmm. bis bu jot nga gis ku fay 6 millions dem xam la fa xew daw ñibbi si waat. daw ñibbi si waat dëgg sama rakk xalil. Hmm. ñoo bokk ndey ak hmm. mu déggee kumpa Nicaragua xamul lu xew Amérique ñu wax wax mu të. dañu ko fayal juróom million mu dem. 6 mois la fa def gisul lu mu xam ñibbi si waat toog senegal parce que dem na xam na la fa xew lam fa gis gënul li nekk fii mu ñibbi si waat toog fas yéene daan dooleem Sénégal. loolu dafa bokk ci li nga xam ni. daf ñu sonnal mooy kumpa ga fa nekk. troisième point bi mooy état du Sénégal na jàppale entreprise yi nekk Sénégal ci wàllu financement. jafe na leen. ci wàllu banque yi maanaam li ñuy wax start-up mooy kuy doog door. pour mu am financement dafay compliqué ci moom. faaw nga am ay garantie bancaire pour banque yi munu la financer loolu soo ko amul da ngay am problème pour mun liggéey. beneen bi ci des mooy entreprise dañu sonn ci taxe ci impôt impôt sur les revenus impôt sur les sociétés TVA loolu lépp bu ko entreprise sénégalaise naree fay. tey sonn day loof. ba dootul mun a développer dootul mun a jël ay emploi hmm. yu bari kon état bi na teg taxi yi wàññi ko nag waxuñu bu kenn fay impôt impôt dañ ko war a fay hmm. impôt sur dañ ko war a fay impôt sur dañ ko war a fay mais nañ ko diminuer wàññi ko ba entreprise yi mun a am capacité progresser grandir mun a créer ay emploi effectivement li xew léegi mooy entreprise yu bari ñu ngi dàq xale yi jëlatuñu xale yi créé tuñu emploi da ngay gis ay entreprises yuy wàññi ay deux cent personnes cent personnes xale yooyu li tax mooy entreprises yi ñoo sonn taxi yi ñoo xaw a métti na ko état bi wàññi ñu yokk emploi yi ba xale yi duñ jël géej gi xalaat boobu laa ci amoon bi ci des mooy. Mhm. ndaw yi nañ bañu yàkkamti yàkkam ci nañ patient. Mhm. xam ni ndar xëyul xëy sotti. Mhm. te Sénégal li ëpp ci teraanga li nit di jëfandikoo ci dundam ku patient fii di nga ko am. waaye néew ma bitim réew baaxul ndax ay nit a fa nekk di faj aajo di fa am la lay seen wërsëg waaye fii tam ñu bari ñi ngi fi di daan seen doole di gagner seen vie kon yàlla na yàlla jàppale ñépp ku ci ne fa nga nekk yàlla na la fa yàlla taxaw li may wax nag suma xalaat la rek mhm. xalaatu ku yaakaar ni war na mën a doxal réew mi la yàlla nañu yàlla sàmm te suturaal ñu te nangul ñu suñu gàmmu incha allah maa ngi lay sant ab El Hadj mhm. di la gërëm di félicité wa waat encore Ndokh TV ndax yow suma frère nga te liggéey bi rafet na yal na la yàlla sàmm te sutural di nuyu Sénégal gépp di leen baal àq te di leen baal asalaamaaleykum wa rahmatullah jër ngeen jëf euh, mbokk yi mu ngi noonu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV euh, Abdou Aziz euh, la ñu indi woon tey doon waxtaan ak moom gis nga ko mu ngi noonu comme ni ma koy waxee chaque jour Abdou Aziz Alé Ndiaye dama ko wax bërki dem alxaaji Talla Gadiaga ni ko <laughs> Mame Ndokh TV caméraman bi rek nga jëndul ni ko yaa jënd caméra yaa jënd drone bi yaa jënd oto bi mais Abdou Aziz dama lay wax ni nag plateau bi moom bu ma soyoon kenn du ci def si dërëm yaa koy defar parce que plateau bi Abdou Aziz Ala Ndiaye laa koy tuddee boo jëndee caméra yi jënd drone yi jënd oto bi plateau bi yaa ko war a defar te comme Serigne Babacar Seye ñu boole nag moom bàyyi naa la ak plateau bi après nga defar ko may invité Cheikh Samb muy def journal maa ngi leen sant baax di leen gërëm alxaj bi ak moom ndox ti ngeen jëf